مكيت كذا مكة مكيت كذا مكة إلى قوله ويتعفر لهم أنفق الآية أو مدنية إثنتان وثمان ناس جرم يقفك آية بكاته طاريات جرم يقفك آية لا النار رفت جرم يمن برنا ذات جلال طاري بي جرم ليس وقت بي تصف لمعي طاري نيو يخلاق حافظون أبياتين أبياتين تبارك الموسي أرتكت yaasin moom hadiisam bi lu wér la yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na jàng leen yaasin ci seen ñëw ndax ñii bi jàng ci moom yaasin yàlla dana xoolal ci moom bu wér de nee na yaasin ngir sax ci ngërëmal yàlla yàlla dana la baal say bakkaat te ci dogale lépp lu nekk na xol xolal alquran moo di yaasin ku jàng yaasin oh, benn yoon nee na ku jàng alquran fukki yoon yonent nee na am na yenn saar woo xam ne ramu képp ku ko jàng saaroo moo di wan moo di yaasin de mu ne yaa ngi baaxul ko jàng ak koy déglu yëpp ci tawreet Muhammad lañ ko tuddee woon ndax li nga xam ne dana matale suñu àddina yëpp ci koy jàng di jëñ mboolem mbugal ak ci ci yëpp ak ci ci alaaxira ci ku koy jàng danañ ko tuddee saar woo a tuddee jàng yaasin jooja aajo dana faju ku jàng yaasin waxtu yi tamit nee na yàlla dana ko yombalal bëccëgam ko jàng ci ngoon yàlla dana ko yombalal guddoon bu jàng ci bind yaasin ci jaam raxas ko saafaraan naan ko yàlla dana bindu xolam bu wow su fekkee dafa bëgg xolam nooy bind nangu ay waat xol ba dana nooy bu jàng yaasin ci guddi àjjuma boo xëyee yàlla baal nga ko mboolem bakkaar bu dugg ci dugub jàng saaru yaasin yàlla dana xoyofal mbugal ci mboolem ñu dugoo ba leneen yaasin yaasin li ma korea leneen gàtt gàtt bi daal ko jànge rek muy doole yaasin laa alam bi muraadi alquran bi na alquran ala tiini la def uy kalañe min na tanaka yaw ameen musani ajina suru bi ñeni yàlla wax na teg bin meri doon ne yonent yàlla muhammad yàlla ko yoni da ak yonent la de ala siraati ci yàlla faqwi da ajji tan suru ajji watale ajina bi ci wuram rawi bi da ajji wuram ay mbidee fam de suuf la nit na nga ragal loo xamoon ay maam te doo adeeku daa baaxoon ay baay seen boobu ñoom xaafi la na koy sàggal nañu de ndax xaxa xawar aw xawlu baax ak dugal baax ak dañuy dugal ba bëri seen boobu ñoom laay ñu ne gëm dinu de inaa na kanum daa naa def moom fi anaa koy ci loo seen ak laalan ay gax de dañu ne ñoom yoxoya luñ boole la loolu la saani gëm de soxna ya boobu ñoom mukk ma moom ñu seen ñu ñu rek waaw dañu ne gax dañu ci ñu mën a tëgg de wajaana defanu min bayni aydihim ci kanam seen ci benn waa aji digale wa min xalfihim ñu def ci gannaaw seen waaye ci benn aji digale waa xëy naa am te mu muur leen foofu ñoom laay dana gis ci moo tax mënu ñoo gis leen ñu ko wa qaana jama ala alayhim ci ñoom àndal tam waa digaleen am lam tum jëlee ñu ko waa dina leen laay ñu ñu ko jëlee ñu ma tum jëlee naka dina waat dana dégg waat man tabaha ka topp na mu waxal bi yaakaar ragal rahmaani ak yéen a ngi koy di ci fàttali ba def ñu xamal ko ñax rek ñu ci baawaay bi nag waaw tey ngir mu daal di fekk te mooy aljana rek. am na yéen a ngi tudd loolu am na taawaay de wana su bu dana bind ci lay ma ma xaddama leen ci dana ci leen bind bind réew rek leen ay waa baaraw ak idée yi seen wa axtay naa takk nañu ku ne seen lépp lépp axtay naa takk nañu ko indi naa nañ ci téere te ñu bu ñu aji jëlante te mooy lay ma foose wax dëgg defal law mi leen masalul léeb asaabal xariti waroon dëkk ba def jóobale ñooñ Makka ñooñ Antakiya mooy dëkk ba yeneen bi yeneen bi Yàlla Isaa ya demoon ci dëkk yi nekk yeneen bi mooy yeneen ci dëkk dëkk ci dëkk aljanna Makka Madina Baytul Yaman dëkk lañ ci dëkk aljanna ci dëkk ay dëkk safara Antakiya al Amoriya ak Qustantiniya ak ak safara ca yaman yaman am nañ dëkk a jana am dëkk safara ñun dëkk boobu yonent bi yàlla saa def leen yónni woon ay yonent ñu waa leen ñu rey leen moom la yàlla nekk li rek ja aad bi sey al mutana ñu yónni ñu yi arsalna ba ñu ne ñu jëm ci ñoom sey ñaar ba tëdd boobu maa tañu wedd leen ñu wedd leen rey leen tëj leen ci kafutan baax na yàlla xeebal yonent yàlla Iisaa xeebal su ñetteel la ñu ñëw kooka moom ñëw daal rek tafu ca njaboot buur ba ànd ak ñoom jaxasoo ñoom jaxasoo ñoom ba àgg ca buur ba di jegeñ lu buur ba di jegeñ lu buur ba ba bokk ci jëtti ba bokk ci jaraafam gannaaw ga mu nekk jaraafam bi nga xam ne moom a ne ko man dégg naa ji bokk ji nga taxawal mu ne ko waaw mu ne ko noo leen mu ne ko ñu ngi ci kaso ne a a indi ñu laaj leen ndax ñu ngi dem loo mu ne dem leen jënd ñu ci kaso ba indi leen ñu jënd ku ngeen ku ngeen di jaamu ñu ne yàlla asamaan ak suuf yoo xam ne mooy bind mbindeef yi te moo leen di rey te moo leen di dekkal yéen a ngi gën a góor gi laaj leen ndax mën nañoo bañ a kaafir ñu ne leen buñ leen kaafir di dekkal ci dana dëgg ñu ne mën nañoo dem ci ci daara Thilmakha ñu ne ci doom amuñ dara ci bët ñaari xool mu ne leen dégg jaraaf bi ko laaj leen ndax mën nañoo dekkal ku ñu ne waaw ñu indi mbokkam buur bi boo xam ne dee na ba am ñetti ñu fekk ko ñu ñaan jaraafu buur bi nga xam ne mooy ñetteelu bi yonent yi moom it mi ngi ñaan di ànd ñoom ba ba nekk seet xool ren ñu jëm na yàlla yàlla rek lañu war a jaamu moom mi nga xam ne mooy borom ne saata mooy borom ñetti ñetti yonent di ñaari yonent rek fi ak sama jaraaf bi ne ko sa jaraaf bi yonent ak bi nag rek moo di ab yonent ñetteel ba moo leen wax ko xaaloo dañu wax ne naanaka ñun moom mooy ñu ngeen lañu def ci ngeen ci yéen xaaloo ñu wax maanaam suñu jëlee ñu laa basaruñ la doomu aadama ngeen nit naa ji di cam suñu wa maanaam su la basaruñ wax maanaam ay yéram dañuy sëy dara maanaam suñu jëlee yéen ilaa tas bu bëna dara da ngeen nar de xaaloo ñu wax ne rabbu naa borom suñu yàlla mu dana mu xam ñu naanaka ñun la mu tënnu ñu ngeen lañu ilaa suñu ngeen ci yéen de wa maa alee naa déet war na ilal balaaxum la rajo la al mu jiitu bëri ay ji xaalo ñu wax ne naanaka nun sax tooyar naa gaaf ba nanu di tëj ci yéen su sax dañoo gis ci yéen gaaf da ngeen wàcce ci réew ba tey ñàkk jeex jàngoro yu di jeex rek lañ gis yéen da ngeen ay gaaf la in lam tantoo walaay def bàyyi leen dana jumanakum dana jàll leen def ba ngeen dee wala yamasanakum dana jàll leen ñu naatu bu gën a saabu bu daal di wura ji nekk de xaalo ñu wax ñoom yéen a ko saa yéen kum gaaf seen naa ko man dinaa yéen rek ayum jikko dundam waa def na leen bal bayit antum yéen xaw mu nit yéen muslifoon ñu di way yàq suuf wa jaa da dikk min aqsal madinati di ko jéggal jëfër yi dëkk ba rajulun waay mooy Habibu Najjaar fekk na waadoon nañ ko moom ba mu doon sàmm ab sàmm bu doon sàmm jëf di ci dëkk ba ba mu déggee nañu yore yonent yàlla ya nag mu daw ñëw wallu si yasaan bi moom dana mu daw xaalam mu wax ne yaa xam ne yéen it sama di kat dina topp leen almukañ yi ñu yéen ñi mu leen topp leen ñett ñu ne yonent yàlla lañ di kat dina topp leen man laa yasalukum talaa ji mu leen ajran ak yool boobu ko ñoom moom dana way jub lañu rek ak ñu ne ko yow yaa ngi ci seen diine mu ne bu yàgg mu ne mu ne buur ba dal di ko tëkk na ko ba tax ngay nekk ci seen diine bismillahi rahmaani rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammadin faatihi lima ughliqa wal khaatimi lima sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal haadi ila siraatikal mustaqiim wa ala aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim wa radiyallahu ta'ala an ashaabi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam وما أنزلنا وتلنو على قومه جنكم يمون حبيبنا جهار من بعده جكنا وقيام من جنكم أي ليل من السماء تجار سمان بلن جهلك ده لله قبينه rey nañ jaamu yàlla bi leen doon xoo jëm ci yàlla ba yàlla na ma leen a xalak yàlla yebal ay malaaka yu jóge asamaan ngir xalak ci leen de wa maa kunnaa mosuñoo nekk mursaliina di way wàcce ay malaaka ngir xalaga kenn de yàlla mos lay jëf ay malaaka yi jóge asamaan ngir loolu in kaana déet muy nekk ilaa sayhatan dara xaaju waaye def ngir genn te idaa am la fekk hum ñoom xaamiluuna way dee lañu de bu bëggee xalag aw xeet di bile rek ñoom ñëpp ñu dee yàlla ñenn mbaggam malaaka rek su ko yëngalee mën naa xalag mboolem ñi ñu àddina moo yeneen ci xeesaa yi suñ sàkk yett dëkk dañu doon waat dañu bañ rey yonent yàlla yee rey ki leen doon eh, waat yàlla xalak na leen waaye bam leen di xalak ñu xebal ay léegi jóge asamaan te sax loolu mës nekk aadaam dala ci jamono nooyin ba ci jamono jooju xëy di xalak ñëpp yàlla mës ta xebal ay malaaka pour xalak leen soxlawut xaaj ci jigul rek ñoom ñëpp ñu dee loolu moo lay won màggat daraja yonent yàlla Muhammad sallallahu wa sallam xare Badar laay joo xam ne juróomi junni malaayika wàccoon pour dimbali si yonent wa sallam nga ne wàcc ak yooyu ni jubluñ ci woon waaw pour bëgg a xarak rek de soxlawut wane daraja yonent bi rek wane taranga yonent yàlla mos a xarak aw xeet wàcc sax menn malaaka waaw ñu ñëw di ko dimbale ci xare Badar de mu ne kenn xaaj rek ñëpp daal di dee andoo bu muudu xam nga mooy safara si doon fàcc wam yàgg mu rek ngay def mu daal di fay yàlla itam noonam ñu bëgg a rek ñu ngi mel mu daal di fay li si fàkka ngi di biidam ndax jikko yi maamee ak xaraara bi koy tàngaay bi ak mer bi nekk ci moom yooyu yëpp safara moo tax su nit dee safara wu fay moo tax la ay gi firé firé firé seen deegi ñoom ñëpp ni ñu ñu doon tàkk ba mu yàgg rek oo na ma yaa xasratan yéen na ma métit alal xebaari ci jaamu yàlla yi alal xebaari ci jaamu yi nga xam ne dañoo weddi daaw jeexee rëccu ak mbugal ci jaamu yi nga xam ne dañoo weddi seen i yonent rek ci dana leen jaam ndax ñëpp di jaamu yàlla lañu waaye nag laafut leen ci boppam de naka nga xam ne dina la tuddee jaam yi nga xam ne gëm nañ yàlla yaa ibaadi kooku laafab teranga la ndax nga xam ne baytulaay laafab teranga la ne baytulaay loolu teranga ci nii ba wute wut ak niroo al baytu rek naka noonu jaam yi itam ñëpp day ay jaam lañ loolu moom kenn mënu cee génn ku dëng ku jub waaye nag jaam yi gëm te jub ñoom lay laafal boppam laafab teranga yaa ibaadi waaye dàqwante nag yéefar yi dañu weddi weddi taxul ñu mën a génn ci njaam yàlla maa ngi xéen nag rëccu te jaam yi nga xam ne dañoo weddi seen yonent maa yaatihim di tëcc leen min rasulin ab yonent illaa kaanu ndare bu nekk nañu yastasiruna ñee ci jóge ci yonent bu yàlla mos a yónni bu ñëwee waat leen rek ñu weddi ko te ko yëj de loolu lam di di jël ci mbugal ëllëg moo tax muy ngeen seen ak rëccu de ak seen jàqare jaam yàlla yàllaa leen bind jox leen wërsëg jox leen kattan jox leen xel ñu waroon ko jaamu mu di cant ñoom ñu dem di ko weddi mu defal leen teraanga ji day nii sàkk ay yonentam defal ko ci ñoom teraanga jël ñu waroon koo sant gëm yonent yi taxal ñoom ñu weddi yonent yi di leen jub waaye loolu dina leen di jël rek di dugg ca alaxira yonent na sallallahu alayhi xeet ay tawat de ne na maa ngi tawat sa xeet man maa leen bind jox leen wërsëg ñu dem jaamu ko ma moy man sooguma leen jaamu ko waaye ñoom ku ci ne may laaj war dëgg wala laa bëgg mu fàkk denc maa ngi bind safara di leen jañax ñu a dem safara ñoom ñu tëggu pour dugg ci safara dañuy sàkkoo xéwinoo ñëpp man ñu yàq sama diggante ak ñoom de alam yaraw ndax dañoo gisul ñoom way weddi kam bari na naa bu nu xaalakee xablawum sa njëkk seen ñoo xuróoni ci xeeti wéy yi annahum laajar joxoona annahum naka ñoom ñuñ xalak ña laajar joxoona dellu si duñu de ilayhim jëm ci ñoom de moo xanaa ñuy weddi dañoo gisul li yàlla xalak ci xeet so xeet yooyu ñu xalak yëpp dem nañ te dootuñ dellu si loolu mënuñ cee waadoo nga ñoom it weddi ak ab dawuñ yëpp yàlla dana xalak ñu dem te dootuñ dellu wa in kullun naka képp dama moosaroo lañu teewal lañu jameewoon boole la day naa fi nun boole seen nag ñoom ñaalaku ñëpp mooy jëkk mooy mujj danañ teew fa kanam yàlla ngi hisaab leen ak fay waaye suñ kaaw déeb lawum ñee leen ndarlu suuf la almay sa si sa di aji wow axyay naa addinal nañ ko ci kaw waa xaj naa tan génne min aji moom xabban gapp de ba min hu ci gaca def mooma yaakul na la ñuy def saaru yaasin yàq yéef lay saxal tawhid ak yónne yónent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ñoom dañuy weddi dekki yi nga xamee ne dañuy weddi dekki nag yàlla dal di indi lay dekki ne moo ndax mënu ñoo xamee ne yàlla mi nga xam ne ci suuf si woowee koŋ mu booba tooyal suuf gàncax génn ca gàncax googa di def pepp moom a ñor te loolu la ñuy dundee ci ci def loolu mën da dekkal ku dee wajaal naa def nanu yaa ci suuf jannaati ni tool min naxiilin siraara mu tàndarma la waa naa bin ak xenaf wa fajjar naa tan balal fi ci moom ne la yoon yi leen di seewle loolu ngir lekk ñun samari yi nañu tam tàndarma yële wa maa amilatu jëfut meññat ay diim ay yoxo seen day lu doomu adama yi woote woote ñu wax ne na ko wax meññati garab yi de afalaa yaskuruun asant ñu xéewalam moo duñ sant boo ki nga xam ne moo defar meññat ni wax na ñaari wax taw na taw taw bi saxal na yaari yëf saxal na mbay mi nga xam ne ci la pepp yi génn pepp yi nga xam ne moom la ñuy dunde mu ne ko min hu saxal na itam ay garab garab yi mooy tàndarma ak xanab yëpp koy teef yooyu ñoom garab yi dañuy màgg a màgg a màggam ko meññe ma génn rek ñor xam nga xam ne boo jàppee rek boo xatee rek daal di lekk bu gëstu fa mu yaakuloona la wax li jëntal bi mu ne di yaakuloo min samari ndaxte ñi doon ñu ngi ñu ngi dundee de am na pepp kooku moom mooy dundal doomu aadama saxutoon ak pepp yi ñu dee bu yàgg moom mooy seen dund moo tax mu ne moom la ñuy dunde meññat yi nag yàlla sàkk na sandarma yi sàkk xeenab yi meññ loo nga yóotu rek daal di xotti meññat ma daal di lekk defantewoo ca dara ama ama mbay mi moom mën ngaa bojji wal mooñ la ci mburu soog a lekk ama nga yóotu rek daal di dugal ci sa génn bu yàlla liggéey na ko ba moom lekk rek a def te defu la ci dara yow jaam bi doo sant ci def loolu tudd na tàndarma garab gala ndax tàndarma dafay garab goo xam ne goo am daraja la goo am xayma ànd ak ma neenam nag ci garab nga ci nga xam ne mooy garab ga meññeen ma la tudd ndax meññeen ma ko xayma léegi nag ñoom la ñuy toxal mu jëm ci réew mu nekk ñoo amut garab ak xenab te réewut garab ak xenab danañoo baax ci ñoom nekk fii ñu sant ci def loolu moo ci def loolu mën da dekkal ku dee te yow jaam bi ci bi ngay lekk soo xamoon xaymaam ci bi soo ko lekkee doo def lu mooy jaamu sa borom de ci bi jaam bi lekk ma balaa koo jaam de lekk fekk na mbooleem jiw bi yàlla yëpp liggéey nañ ci soo jiwee sa jiw ci àll ba yàlla dina liggéeyloo asamaan ci taw bi mu wàcc ca taw mu liggéeyloo suuf mu xotee bu génne gàncax mu liggéeyloo ca guddeeg bëccëg seet ak tàng jant bi di ci liggéey. weer we guddi gi di liggéey mu liggéey loolu ca doomu aadama sax ci gën a xoor nit ñi donc am di fay pour bëgg a éwénal mbay moomu mu loolu ci guddi kër yi nag dañuy bay di topp liggéey loolu ca weñ gi ñuul i lér gi ngay bayee weñ gi ñuul la liggéey loolu ca garab yi parce que bi sox sox bi wala gox bi ñu ngi jóge ci garab mu liggéey loolu ca ndox te gàncax googu màgg ba àgg ca dayoo xool ci ñor ñu góob ko góor ñi liggéey ji jigéen ñi xam ne ñoom itam xool ci wal mooy liggéey doon ci safara ñu xam ko ñor ñu liggéey doon ci sax jaww bu seetalaat ñam ba nga mën koo seet. moom nga sax seetlu nga ne mboolema arab yëpp liggéey nañ ci nga sax sax kon lu jekk ci soo ko liggéey soo ko saxee ba noppi rek nga dem jaamu sa borom nag waaye loolu yëpp man yàlla maa ko liggéey seeni loxo liggéeyu ko ba noppi ñu ma sant war nañ koo sant alhamdulilah rabbil alamin wala amee taxawal na laaya mu ne subhaanalladi dina ma sell mu la soo aja xeet yëpp kullaha yëpp seen yéemal buur bi nga xam ne mboolem xeet yi taxaw ci kaw suuf xeeti gàncax mooy ci ko saxal ñu maatum bitu dana dana saxal ko ndar la suuf wa min gàncax gi kat xewut ci suuf yaa ngi seet gàncax gi sax ci suuf ñu tëf tëfi waaye seetal itam gàncax gi nga xam ne yàlla nga koy dindi ci doomu aadama yi waaw góor ñi jigéen waaw jàppalal na góor gi ak jigéen waaw joo xam ne moom moom a xeetoo mu sëyeeg moom génne ci ñoom ngir naka bu ko defalee doomu aadama yi la ko defalee dunda du nekk jëleen gu góor ga sakkal na ko jëleen gu jigéen nagu wa nagu na ko nagu jigéen xarmu góor ma sakkal na ko xarmu jigéen xarmu jigéen béyu góor ma sakkal na ko béyu jigéen mbaam bu góor sax na mbaam mu jigéen ñu ngir sante mu génne ci ay xeet yi du jeex lu ngeen xam ak lu ngeen xamut wa la ya'lamuna ak ci lañ xamul ak li xamul na ci yàlla yi yéemu yi te looloo gën a bëri moo yàlla mi def loolu mën leen a xam ne kenn la te wéet na tam mooy ngeen di ko jaamu moo nee naa leen saaru yi tekkal lay saxal ak ak yonent ak tawhid mu dal indi tekkal yi tekkale kattanam ñu xame ca ak wéetam wa aayatun tekkal la lewum ñee leen ci suñu màgg ak kattan day di ci biir nas laqu dana nu génne minu ci moom naa rabi teg de nekk na ci saako yi tegtale kattanal boo guddi gu lëndëm sërës yàlla boo ci ci bu leer nañu nii de tey saa am ci la fekk mën a way xarala ñu ci lëndëmati soo nekkee ci bëccëg baa ngay dem yow yëgu la lu xew loolu la nu mooy guddi dellu ñëw rek bopp loolu mënuñ cee xamee kattanal buur boobu xam ne foofu kenn la te wéet na te moom rek ay la sant jant bi te jëri mu daw jant bi di daw ci pëlugam li mu saxariñ ba ca saxuwaay laa bu ñaan solo di daw ba ca saxuwaayam de mooy ci digga wala sowu ba loole wo nga daw jant dana mu daw jant bi di daw ci pëlugam li mu saxariñ ba ca saxuwaay laa bu ñaan solo di daw ba ca soxwaayam de mooy guddi ga wala sow ba saalika loole ñoo daw ak jant tax biirul mooy bindab aji not ji ci nguuram alaani aji xamaa indi defam de jant bi ñu ko yàlla tàggate muy daw ci jurutam di daw ba ca soxwaayam soxwaayam su fekk jant day soxu mooy mois de ca sow wala mois de ca guddi loolu mooy dundal aji not ci suñu borom wal xamaru weer wi naa dogal nanu ñaal ko manasira ay wàccuwaay xasar naa dogalal nañ ko manasira ay wàccuwaay flug bi nga xam ne jële jant bi daw bokkut ak flug bi nga xam ne ci la am flugam jigéen itam am seen flug di daw ndax suñu jant bi ñu daal di ko jàpp wala weer ñu jàpp ko li ci ne dafa am bulugam bi nga xamee ne weer jant bi ëpp doole weer wi am ay yi am ay wàccuwaayam yu xiis yu nekk ci suuf si wàccuwaayu jant bi dana daw moom weer wi juróom-ñett yi nga xam ne moom la ko yàlla defal bu ko defee mu suturlu yaari guddi bu fekkee weeroo weeru ñett fukk la wala mu ci benn guddi bu fekkee ne weeru ñaar fukk ak juróom-ñeent la bët bu seet wàccuwaay bët bu seet wàccuwaay li moom lañu wàccuwaay ca hijri ak ca saaru xamar ak delloo ci kalawar jooni na kay cëg sandarma am xadim ga de aji màggat de boobu mujj sawati ruur waaw fa mel ni cëg sandarma boobu waaw mel xala loolu la nam tàmbalee woon weer wi bu tàmbalee dafay sew xala sew ruuru waaw mel ni ci gannaaw bu màggat gannaaw muy dox di yokku di dox di yokku di dox di yokku ba fees dell nekk weeru badara nga gis muy wàññeekooti di wàññeekooti di wàññeekooti ba dellu ni ak nam meloon ca ba muy teew kaw bi ruur dañu mujj na noonu ci sant bi ci wax ci ci waxu fajar ci ci ci tey ci tey ci waxu fajar mooy mel ni sam teew bu weer nga sowu ko ci noonu lay demee nga xam ci jant bi yàlla ko ci jafe laa ñaan ko am ci jafe mu jafe am xabar weeroo nga ko ñu bu jant bi tànk nga fekk weeroo weer bu ko bu dee ni moom bi di ñu ne moom bi dañuy wutoon te sax ñu xam ne ñëpp daje wala leen di jaagen di kii saabu xumaare ak wala leen di jaagen di kii saabu xumaare ak gis la mu bëggante yëpp yàgg yàgg yëpp si boo xam ne man laa tey di ñëw si kàttu daal maanaam si si de yàq nit mu ñëw lu may ba nga xamee ne ba dem na de fokk mu muñ ba ba jeex rek guddi doog a ñëw guddi itam man man tam Moussa Moussa jant bi man day àkkamti ba ñëw sax ak ji bi de jeexut de kullun ca suuf loolu danañu koy ci kala ci ci nag yàlla tàggatal na ko fulub yoo xam ne ca lay waaye lim ñu natt lii ci gàncax nam saxee ba nam def tepp ba nañ koy lekk liñ xam moom ni ni ko waxee noonu lañ ko gisee. lim ni soxla si guddi te itam nañu xóor ne nam na waxe rek noonu la mel de waaye tun saa jox ni tëttale kattan su kattan sunu lewum ñee ñoom nit yi anaanaka nun amal naa waral nanu turiyaat yi mu ay baay keneen mu fil ful bi ca gaal nga almasoori nga digguñ feesale ki mbi def de ba tey mu indi tegtali kattanam yàlla def gañ sax muy mbay muy garab yi ba mu àgg fa nga xam ne fa la ko doomu aadama yi jariñoo yàlla def di dégg bëccëg seen tag weer ak di diw yi ndax dañu leen beneen kawteef seen seen xeet seeni cosaan yàlla ngeen waraloon te gaal ak yonent yàlla nooyin nga suryetu la dana firi ay doom dana firi ay baay saraar yi mooy njaboot rek njaboot gi gën lañ ca nuun ba tey moo njaboot googu amut ñi waraloon ca gaal ba nga xamee ne bàyyi tuufaa ñëw na àdduna yëpp ci ci nga am na ci ñu waraloon ca gaal ak yonent yàlla mooy nga nga xam ne feesoon naa ki mbindeef booba bu taxutoon ak gaal ak yonent yàlla mooy ngeen ngeen di def xeetu adama jeex takk foofa waxalax naa tan bind lawum ñee leen ñu nit yi ci cam gaal ak nga maa weer ka boole ñu wax rek yàlla yemu xanaa indil leen ay saxaar gannaaw ga ngeen mën di ko tuddee saxaar di kët di ngeen bëgg a tukki gaal yu ndaw ak yu mag yëpp amut lu mooy ci xamle yàlla yàlla xamle nañuy xette gaal ñuy dox ci géej yàlla xamle nañuy defare gaal ñuy nañuy doxale gaal ñuy dox ci jaww muy jaww yaa ngi nekk muy jaww jëf génne ci ci àdduna lépp yàlla la. way na tànn way maa tabaroon li ñuy wax way na tànneem soof na ma ko comme nu ndabal leen am lañu amal daal dañu leen wan ne lépp lu dem yàlla la mooy daal daal daal moo leen di jàlle waaye bu ko neexee jëf bu ko leen bu ko ànd ak daal nga def nga xam ne kon dafa di jëm jëf kon jëf dañu liggéey kon moom ñu ko rek ñu ne gaal ngay def wala gis ba seeni gaal ñu nekkuñ ci seen gaal dara xalaatuñ dara ñu xëy rek daal di suux ak seen gaal yëpp da nga gis saxaar bi dem ba mu mu mu xalaku moom ñi ko waroon ñëpp automobile avion yëpp su mucc rek yàlla la musal waaye su ma ma boole leen gaal ga xalak wala tariqa ci déet aji wala um déet ñoom ñun fasaba yàlla mooy ñu xalakal seen gaal kenn du leen de lan la ji rahmatan ndara yërmande li moo di ci kesi nin a mataanaka yóbbal ilaahi da ko wax ci joxab daal mooy man yàlla maa leen di yërëm musal leen ak seen i war waaye ngeen ba àggale leen fa de yeneen karate fa ala bindin saxaar yi yi leen di ko tëralee yi nga xam ne ci ci ngeen di war di ci xet seeni marchandise yooyu yëpp yi kenn na ci yaari jikko yàlla defee yooyu yëpp sant leen li gën a woyo ñu lànk rek nga am ko war mooy mu màggale aji bind ji nga xam ne yërmande ji nii nii de yooyu leen way saa xelam dem waxee na law mi yàlla ngi taxoo ragal leen maa bay na ay diikum mbugal ma nekk ca kanam seen wa maa xalfakum ak la nekk ca gannaaw seen ñu leen ne ay ragal leen yàlla na ngeen wattu yàlla mi nga xam ne su ko neexoon mu mbugal leen ci àddina su ko neexoon mu mbugal leen ci àllaaxira laalakum boo yeen ku xamoon a def na yërëm a xeex ci xeeti ragal yàlla di jëm yàlla wala ragal yàlla ngir ragal mbugalam àllaaxira foofu sax àggatuñ sax ñoom ragal leen yàlla mi nga xam ne bu ko neexoon fii mu wàcc ci yéen mbugal fii jaadina rawatina àllaaxira ragal leen yàlla moomu rek ngir seen mucc ak bopp ëllëg looloo gën a woyof ci màggal yàlla xanaa ñu bañ au moins daal di leen dikkal ci leen dinaa kaase dinaa rab yi ci kaase borom seen illaa kaanu ndare bu nekk nañu mu rek ñu di wéy daanaa wala di te loolu yëpp yàlla woon na leen ay kàddu yu teg ko dëggoom waroon nañoo gëm yàlla moomu màggal ko topp ndigalam bayi tereel suñ ko defut ngir dara sax ñu ngir su ko neexoon mu bugal leen ci àdduna su ko neexee mu bugal leen ci àllaaxira woy saa xëy na dem waxee ma law ñu leen am sa xoo dundale leen maa la soxla suñu laal la wërsëgal leen ko yàlla si ma ñaañu ko fa ñu ngi des na ñaañu amoon na gëm nañu ànd ak ñun day leyal ci nu man law ya saa soog doon te soogoon na laaw yàlla afama mu leyal ko def ci koy ñaareel ji lan ne nañ leen fàkk leen sodax sodax leen miskin indi leen yàlla wërsëgal ñu ne ñun duñ leyal koo xam ne su neexoon yàlla mu leyal ko ñun an tum jéeryéen ci wax yi da ngeen wax ne yàlla ay lele i laa fi dalalin ngara ji na si den ci réer mu bir bi yaari yëf lañ leen waare màggal aji bind bi ak yërëm bindeef yi màggal aji bind bi lu xayaf lañ leen di sant nañ mattandi ko rek mbugalam yàlla tey ak ëllëg ndax yàlla yërëm leen de ñu lànk dëgg ñu ne leen lu baax le teyoon bi leen yàlla jox topp leen ko ba miskin yi ngeen torax leen de ñu ne xam nga ngeen ne yàlla ay joxe wërsëg kon nag su neexoon yàlla mu jox miskin yi kon wala joxu ko ñu lank nañ ñu jox koo xam ne yàlla joxu ko yéen fii ñu yéen réer de yaa ngi leen sant fii ci nekk lu woyof la te lank bi ñu lank seen bopp rek lañ ko def miskin yi ñu ko wax ne sabax ko ko saraxee miskin ma dana am ci diine gis nga ba rek di dégg njëriñ yàlla gis nga yàlla ne waral gis nga bi wala gis nga bi ñëpp di àndoo beneen yoon ko waral nga bi mu dana mu leen woon te ñoom wax ak ñoom dana ñu ko doole nga xam ne ci la ñuy dee nag dafay dëkk àdduna yëpp dafay fekk ñoom ñu ko doole mata ñu ngi gis ñaan nga dem doole ñëwaguñ su nekk fu mu la dee rek waaye nag fasoo naa tamit ñu taw si ak dénk ak dénk rek moo tax war nga dee moom li dee dana waaye keroog moom kenn du dénk rek ndax ñu koy deeandoo wala yàgg doon na dellu ci dem marché dem tool dem gàtt. ci ku nekk rek fam la fekk foofa ngay jeexandoo foofa la ngay kenn du dégg kenn ñëpp ay jeexandoo loolu fi xata ja buf tama wala ñoom ñaareel su ko defee ñu wal buf tama wala ñoom ñaareel gannaaw ñu doon fukk ñeen fukk rek la hadis ja wax nag abi horay ko ñu jëne hadis ja ñoom ko ñeen fukki at mu ne bañ naa ñu ne ko ñeen fukki weer mu ne bañ naa ñu ne bañ naa bi de lan ndax yonent ñeen fukk rek la waxoon waaye boo dee ñoom si leen ñu ko ñeen fukk at ñu diggante wala ñu jëkk ak ñaareel waaw ñeen fukk at dafay dox tey fa am fi la sat um ñoom ñu bàmmeel ña yàqu joona gën a yan dinañu génn dina la bilaay waaw ñu gën ci borom dana ñu walee way nam ñaareel ba boole mbindeef yëpp danañ génnanoo ci seeni bàmmeel dellu ci seen borom karaw de boo xamee ne yàlla na mën a tukkaraat dina day digal Israfil mu wal buf te ba walin di jëkk mboolem lu ne ci asamaan suuf ñëpp jeexandoo mu digal leen yeneen fukki at yoo xam ne asamaan dafay taw ndoxam na niw rek ci kaw doomu aadama yi seen yaram yi di jëddi ñetti capp bi ji na muy jëddee ba saxaat te ku nekk yaramam sax ba day nam dayoon ci diggante boobu nag ñeen ci teer yooyu yàlla dafa buggal yéefar yi ñoom ñëpp ñu nelaw yi neex la ñuy nekk seede mag saa si wal bis dafa bëggee dekkal mbindee fi waaw ma dekki yàlla bëggee demal ca aljana nga jël alburaax takk ko jël yére yonent bi sallallahu wa sallam waaw ngeen dem jëli ko def ba defee ridwaan ba feeñeegu aljanna dal di pare pare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na nag lépp lépp lëntoona waa lépp sax na gàncax gaa ngi raboo ba jëm ci kaw asamaan loo xam ci dëkk nekkoon ci kaw suuf ak ci dëkk nekkutoon su ko defee malaaka yi ñu jël ci yonent bi ñu xam sax fu Madina ba mu jaabi ñu ne Jibril ñëwal yow mi nga xam ne yaa xamoon Madina moo daa dégg day bu dégg ci di dem di dem di wan yoonu Madina ñaat ci rek su ko defee rek ñu daal di xëy yonent yi mu daal di jóg de waaw ñu daal di ko nee na na sama xeet na yàlla defal sama xeet waaw ñu ne ko jàppal ñu di wax mu dem kenn waaw te jëkkuloo teew de su ko defee ñu dekkal ko nag solal ko yëreem mu ñu daal di war waaw ko itam yàlla a wax ñoom yéefar ya yaa way naa est-ce que nag xalaat man baaxoona ana ko xëy na munu min marqadina dëkk ko ci nelaw i de nelaw yu neex yi doon nelaw ana ko ñu ci xëy di def ngeen fi caajëf ci galuñ leen ah de dekk maa waa Adam mooy la dale dale na rahmaanu ak yéram jadi xam dekk ji yàlla doon wax ci alquran nii sadaka dëggal ne ak mu tëdd nañu yéen lekk yonent yi waxoon nañu dëgg rek wóor na in kaana déet muy nekk ilaa sayatan dara xaaj waaye def ñu di jànn te itam la takk hum ñoom mu ba na ñu teewal lañu dem noonu boole seen la day naa fi ñun de benn xaaj rek la israfil di xaaj ñoom ñëpp ñu daal teew kay itam yàlla def jibi kay xeefar ku gëm ak ku weddi ñëpp daje nag nga doon jaamoo kañ doon jaamu jàkkar la ku nekk da nga diggaale yàlla waxanteeg moom kenn du leen lappatoo waaw nga taxaw fi kanamam ci daal di dox sa digganteeg moom al yow ma tay laa tuf la mu deful wàññil na suñu bakkan sayan dara de yàlla du tooñ kenn tay day wàññi ay yoom mbaa muy yokk dara ci ñaar yoom de wala ci soxna si tey leen la ma ko dum dara ko la ngeen ko tan ron ngeen jëf ko su ko defee ñëpp ay jaxasoo foofa da yàlla taxale leen way nekk lañ ci waxe ay xiib waa ci way xeewu lañu de ñu al jana nag ñoom yàlla ngi leen dugal ci xeewal boo ne bët mësu koo gis nopp mësu koo dégg mës ta toq ci xolof doomu aadama ci bànneex de waaw waxe ay xiif rek mooy mooy def seen liggéey te waxe xiif ci àddina nit dana jaam deret dana jaam foofu ci àjjana amul nit amul deret de um ñoom waa soo ñu ak jabar seen ci dilaalin way nekk lañ ci cer ala la raay ci way nekk lañ ci kaw muy lal seen mu tasiyoona way ci tënk lañu mu tasiyoona way tëdd lañu rek ñoom ñu ngi aljanna ku ci nekk te jël ñu daraja ci ñu aljanna waaw lalam dana day diggante bi léegi asamaan doxab juróom téeméeri at lal bu nekk juróom ñaar fukk ak junne ci mat lay ñu tegaloo su ko defee boobu laam nga kenn di xéege boo bëggee xéeg dafa yëg ñëpp wax ci sa kanam ba nga toog mu ci ceeg yow de waa ak seen jabar de bu gën a ñëw jabar benn jabar ji aljanna mooy ko am fukki junne ñaar ak téeméer juróom-ñetti junne jeex ak ñeenti junne jànq ak téeméeri hurna yi loolu daal ku a jabar loolu lay am ñu ne yonente jabar yu bari na ko gën góor ñi def a ne boo digaale kenn rek yaa nga digaale ñëpp de ñu a mu ne seet leen jant yi waaw benn jant bi la dëkk bu nekk mu ngi leen santal waaw loolu la dëkk bi daal dana dina rek ay jabaram de loolu ñu ne nga leen saa saa koy am moo xam ne duñ fàqal bañ ñu daal di siyaat ci sa kanam rek war a daal jàngal dafay mel ni dara jaral nga def yow di ko bëccëg ak nga ko mën góor donc boo ñu daal beneen daal di fa mu xaar indi moom waxtaan daal léeg-léeg ñu ñëw sàngam laa bëgg rek ñu daal di waaw daal di koy garab yoo xam ne koom daal di bagar boppam te bu ci faraatam daal di teel di sa kanam daal ko fakkan daje wala ñu ñaan leen daal jànn maa daawoon li ñu def te sax si dara ñu ñëwaat jàllale li ñu def rek mu teew ñu naan kanam de lépp loolu yëpp de mooy salaamu alaykum salaamu xaw nañ ñu ñu wax ñu wax ci suñu borom la ñu wax lépp yooyu yëpp mooy yàlla ci boppam dana leen wax asalaamaaleykum de ñu ñëwaat jàllale ñoom seen kay wala ngoo xanaa si lekk ak naan ak sey ak dëkkuwaay loolu ca am. bés mosu koo gis mosu koo dégg mos a toq ci kanam doomu aadama xeeti policiers loolu ñëwee loolu yëpp nag yàlla ci lëmbam dana leen nuyu de amaa ñu ci def wam taasoo deex na wax ne wam taasoo beru yoonu al yow ma tari ay yoon ñu jigéen wane yéen way weddi ñi ee yéen ñi doon weddi yàlla nag jaa addina beru leen laa bu leen raxaloo sama jàmm yi yëpp daldi beru nag ca wàllu càmmooñ waa ak seen xar cee jëkk ak seen yaag gax ya de ñooñu aljanna danañ yàlla foofu ñooñu aljanna sant yàlla fii ci àddina di yàlla jubalee ci gëm wax alhamdulilah lazi hadaana li haaza wa maa kunnaa linahtadiya lawlaa an hadaana Allah yàlla yoon wu jëkk ba ñu jaam yëpp des fois rek jullit ñëpp teewandoo benn yoon yàlla ne woon tasol yow maa yoon mujrimuna kéefar yi beru leen waaw ñu daal di beru ci benn boor waaw ku ca bokk daal di xam ne waaw yow bokk loo je ñu ne julli ñu ne aljana daañu sant foofu yàlla alhamdulilah li si na jana min xawmi waalimiina buñu génnee pencam yàlla jëm aljana ñu ne alhamdulilah li si asabana alhasana inna rabbana la xaforu sakoru alhamdulilah li si alana daal mu xam fi sabi day mosuna yàlla wala mosuna yàlla foofu ñu jugee ci seen këlee ci aljana nag ah alhamdulilah li sabaqana wa dawo waaw Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam boobu jàng seen saa si saa te ne maa jublu am leen buñ ne beru leen yéen xeefar nag bu leen jaxasoo tey jullit ñi yàlla ngi leen di yedd nag alama aadi ndax alama aadi ilaykum ndax digaluma leen woon maanaam anaam yaa bani aadama yéen doomi aadama ci lamiñ yonent yi allah taabu doo bu leen jaamu di seytaane seytaane ndax yàlla waxu leen woon ne bu leen jaamu saytaane bu leen ko topp ne woon la mu binun bu di dig ji noonu la ku ñee leen ndax waxuma leen woon ne bu leen jaamu saytaane te waxuma leen woon ne saytaane seen noonu la seen noonu la bu fit bu leen ko bu leen ko jaamu waa nag naka mbiram bit bu doonee wéetal leen mag jaamu bu leen jaamu saytaane jaamu leen man yàlla asaali leen siraat yoon na mu sax mu wut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 liñ la digal nga gis ne dëppoo na lu yàlla digle loolu soo ko defee jaamu nga yàlla waaye liñ la digal muy lu la yàlla tere nga def ko kon jaamu nga seytaane rek nag ngam daf laa feeñ ci jëleen jëmm ngam daf laa feeñ ci sa jëmi bopp fu ne mën na la faa dikkee jaamu seytaane gi muy wax daal sant bàngoo lépp luñ la sant muy lu neexul yàlla rek dem tudd jaamu nga seytaan de na ko yaare yàlla yan noonu la xam nga war laa doo la la lu baax jaamu leen ma man yàlla mi nga xam ne maa leen bindoon loolu mooy yoon wu jub du digle yàlla ne du digle woon naa loolu ci àddina noo doomu aadama nag mooy ba yàlla def ko muy xalifa ci suuf iblis dafa yàlla ne ko na su joodal dafa bañoon de ngir xañaane aadama booba nag lam defe woon ak li dafa defe woon mën naa nekk di noonu wante Adama te ñoom ñëpp ñu nekk ci péew yàlla ñu ci buur di am ay jaraafam ñu ñaanante ci kanamam di seexante te ñoom ñëpp ñu nekk ci péew te foo na loolu mën na nekk ba mën naa nekk foofa te seex Adama di noonu moom te du génn ci place ba am ci yàlla yàlla bett ko nag ba xamee ne bañ na du jóotal Adama rek ñu dal ko dàq mu génn péew ba wéret far noonu ko dal di nag wutoo leen moomu doomi aadama yi ne danaa leen diggal ci ndeyjoor ak càmmooy fenkoo xarfu danaa leen réeral loolu la xasoon noo nekk foofu la tàmbalee woon yi nga xam ne saytaane suñ noonu la nag lu tax ñu di ko topp yàlla mi ñu bind dawal xéewal yi mu ne ñu jaamu ma loolu mooy yoon wu jub ñu fett dem topp saytaane mooma di seenam noon di jaamu saytaane far jaamu ko mooy bu fi leen yoonalal lu la yàlla bëgg ñu di ko nangu loolu lañ defoon ñoom doomu aadama yi jaadi na moo leen indi tey ci toroxtaandeel wam taasol yow ma yoon mu jëriñoo na. wala xaroo dana réeral na min kum ci yéen ci bilan mbooloo. parce xam ne Iblis moomu réeral na ci yéen mbooloo mu bari. xeet yi dëkk yëpp dëkk tey afalam takkoonu ndax nekkuñu woon taqiloona di xelu afalam takkoonu ndax nekku leen woon taqiloona xelu ndax xeluwu leen woon te gis ne aadama seen iblis seenam noonu la iblis réeral na mbooloo mu bari jigéen ngeen dem di ko topp asi li la jaanamu jaanama a pi xam ne kuntum nekkoon ngeen too doona def na tëkkoo leen ko de mu ngoog topp ngeen saytaane nag bañ a di leen bindoon jaamu leen borom bi xana dem di jaamu seytaane léegi nag safaraa gi mooy fay gi la waa leen ko waal ma tey dugg leen ci safara tey na ngeen nekkoon tas borom safara ngoog de nit mu tiita safara ngoog dugg leen ci tey tey tey du dara xana tey lañ ciy dugg rek ah ñu ne yàlla ñun kat nangu benn seede bu ñuy seedeel dara lu may seede su bàyyi ko ci ñun te ñun mosuñoo sàkkal yàlla bokkaare wala ay rabbinaa matunaa musrikiin sàmm nañ tan buur ne alyawma tey max si mu dana nu kaste ala bàyyi yàlla si kaste gémmiñ rek yañ doon mën a tene te dootuñ mën a kon li ma lañ doon def cër yi daal di wax nag lañ doon def yëpp loxo ak tànk ñoo gën a bëri li ñuy bomboo ci jëfi mooy yàlla waaye cër yëpp day ay tànk waaw lamboo na fay ay loxo lamboo na fii te ñu yooyu gën a bëri lu ñuy bomboo mooy xanaa ca nekkoon yàgg si ba doon fagu ko de lu nekk dal di wax maa defoon nangam man maa defoon nangam man maa defoon nangam nit ki jégg moo tax de yàlla ne du leen laaj maanaam du leen laaj laaj bu bu muy bu muy xam-xam ci ñoom di waxit ne duñ weddi lañ defoon tey weddi nañ ci yenn taxawaay yi ndax wax nañ wallahi rabbina maa kunna musrikina waaye bañ weddee seen cër yëpp saxal lañ doon def mi ngi mel ni weddi gi amul de walaw nashaa donte sooban noonu la tamas na ala ayunim gonte yu silmaxaa leen de xamoon ne yàlla su ko neexoon ak li nga am yi bët yëpp bu ko neexoon mu silmaxaa la dootoo gis dara gis nañ loolu ba tey ba sabaqoo jëkkante leen siraata aw yoon de fa ana yubsiroona naka ñu gisee de su yàlla seen maxaalun bë di ba noppi ne leen aw leen ak yoon yi kon naka la ñu gisee yoon kon kenn gis fenn leen su neexoon yàlla ku bu jógee du gis fu muy jëm rek wala na caaw doonte sooboon nanu ma sax ñu di golo de neexoon yàlla bu ma doomu aadama ji ba mel ni golo wala mu mel ni mbaam tugal wala mu mel ni doj de alaama kaanat yéen ci barab seen fi nit ki toogee di dinklikoo ko foor foor su neexoon yàlla mu daal di jóg rek di goro wala muy mbaamtugal wala mu nekk di kon nag yàlla mi leen def ñu mate ni amee jëmmi doomu aadama di gis di dégg di soppandiku mënuñoo sant kooku ba jaamu ko lim ne mën naa soppi nit ki mu di golo nag mu daal di indi dalil waman no amiru ku nu dundal ko an ko sunu jatte ko fen xal ko ji bind te loolu waaw amul werante rek ku gudd fan ci yéen rek daal gis ne bindam soppeeku na rek di soppaniku mën na sant boobu ba ba jaamu ko lim ne mën naa soppi nit ki mu di golo nag mu daldi indi dalil wama nu amiru ku nu ci yéen rek daldi gis ne bindam rafet yi si ne woon ci gannaaw ñeent fukki at léegi ñu ngi màggat mel ni golo de ku màggat rek da delluwaat mel ni golo moo yàlla may def loolu di mu mu di liir gannaaw ba muy ndaw gannaaw ba muy waxambaane muy catañ catañ jot daye ci rafet gannaaw ga muy wéy ba nekk mbañam rus gannaaw ga muy wéy ba màggat gannaaw ga mu màggat ba kootoot ba nu mu rafetoon rafet dafay mujj mel ni golo ci man loolu mën da soppi nit ki golo léegi afalaa tàqloon lu sara xelu lu tere ngeen xelu xam ne ka man loolu mën naa dekkal ku dee bañ gëm ko saaru yett yëf rek lay saxal wéetal yàlla kattanam dekki ak hisaab ak mbugal ak xéewal ak yónnee yónnante yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni saaru tàmbalee woon de si wal qur'aanil hakiim innaka laminal mursaliin mu dellu ci nag ci ma lam naaw xamaloon ko moom Muhammad asiara way ñu ne yonent bi waykat rek la yonent bi yàlla xamalu ko sax luy way wamaayam bat yi jàppandiwut waaye law ñeel ko rek yonent def way sax jàppandiwut ko moo gën a fasaalu yàlla bind waaye mën da rab benn baytu de mën da sotti sax benn bayt sottee baytu baytu way sax fokk mu sotti fokk mu sottee ku ci làmmiñam in wa déet moom i laa zikrun la rek alquran la dikrul waat la ko xuraan al xuraan bi ñu ji bidde ci yonent mënoon a way kon seen lënt bi ñuy wax na al way la kon ñu mën a am fuñ ko fuñ ko wéet waaye yonent moom dara dara dara dara la mënut ci way mën da mën da mandaxa benn bayt mën da nett li bayt ci melaw way way daana daana daana misaaloo way li Zuhayri wax wayaatika bil axbaari te tubdi lakal ayyaama maa kunta jaahilan wayaatika bil axbaari man lam tuzawwidi baytu boobu yonent daana ko wax bay baytu boobu hadis la léegi waaye fa daa wax wayaatika man lam tuzawwidi bil axbaari Abubakar ne ko du noonu yonent bi wayaatika bil axbaari man lam tuzawwidi mu ne lépp benn la <clears throat> ba mu fan ak way te moo gën a fasaa ku nekk te jiital xam da mujj fabra moo gën a fasaa moo tax moom wayaati ka mën dam sa wii di ndax baar lay wax su dee ci làkk yaaram rek loolu gën a fasaa waaye su dee ci way nag loolu ma ndaxawut kaab waykatam la xasaan waykatam la loolu nañ xëccoo ñoom ñaar ku ci ne ne moo dàq way moroomam ñu ne nañ ci yonent bi de ñëw ci yonent bi kaab ne ma xasaan ko dàq way yonent ne ku ne ma déggal wayam kaab ne maa wax ne inna rasuula la sayfun yustadaaw bihi muhannadun min suyuufillaahi maslan mu ne xasaan yow la wax xasaan ne maa wax ne fa inna abii wa waalidahu wa ardi li ardi muhammadin minkum wiqaaw yonent bi ne kaab xasaan la daq way mu ree ne ko yàlla wax na dëgg wala maa la naa la seere yonent xam ruway wa maa yan baxi jàpp ni ruway la wañeel ko de inu wa déet moom alquran boobu ilaa sikkun la rek waat la wa qur'aanun te alqur'aan mu biin ji daay ji gudd rek loolu saxal na ne yonent bi yàllaa ko yónni lim lim dikke du woy di tun si rangit na nga ragal loo man kaana ka nekk na mu xayan di aji xelu ndax alqur'aan ji soo ko jàngee nga waat képp koo xam ne ñu am xel te mooy jullit ñi te mooy nga xam ne dañuy dund waa waye xata dëgg alxawlu waxal kaafir na ci way wet ñi de yéefar yi nga xam ne ay ñiw lañu amuñu xel nag nga duñ ci li leen di wax baatam bu gën waxee ci ñoom ne loolu ci yonent bi la xaju ñu yaraw ndax gisuñu am nun xalax naa bind nanu lewum ñaa leen li ma amilat ci la jëf na ko ay dina ay kattan sunu anaaman gidikat ba tey ndax duñ mën a seet ci tekkali kattanal yàlla ba xam ci ak wéetam juddikat yi mu leen bindal te maa ko jëfal sama bopp amul bokkaale amul aji di bële mooy gëlëm ak nag ak bëy ak xar boobu ñoom maalik wane way takk lañu laxaa ci juddikat yooye ma may leen juddikat yooye ñu moom ko te ku ci nekk takk na la ma xam ci jub jaar gay lu ci waaye rëy rëy gétt xam na lu ma xam ci ay nag borom gëlëm yi noonu borom bëy yi xar yi noonu wasalal naa tan tàggat leen lawum ñeex leen fa mi naa tukke ci judi kërie rakkoo buuma ak war seen wa mi naa tukke ci ñoom yàquloo nañuy lekk man yàlla ma tàggatal leen judi kët de suñ bëggee war yéen ñi war ñu war leen suñ bëggee rey lekk ñu ñu tër rendi wala um ñeex la leen fi aj ñoom mën naa fi way njëriñ yeneen te am nañ ci yeneen njëriñ mooy suuf maag wabar waag kawar ga wa mashariju ak i naan waaye ak meen soow ma ñi di ko naan afala yaskuruuna sant ti ñu xéewal ci bind lii man mi def lii duñ ma sant xam ne ki def lii kenn la te wéet na te moo xeeyoo jaamu beneen tepp la noog mu ne fang ñu janoog moom yi mu wax ci fëlëg yi asamaan fi xam na ñu ko ñu waaye juri kët gaa ngi yàlla leen bindal gëléem ak nag ak bëy xar yàlla leen tàggat ba soo bëggee war jàpp war soo bëggee rey jàpp tër soo bëggee rott taxawal rott buy dund yaa ngay am ngirtu la suuf ma wabar wa kawar ga ak soow ma ngeen di naan loolu yéen ko def tàggat bi ñu tàggat bi di kër yi na seen i safaan pour nga xam ne yàlla yàlla leen tàggat soo bëggoon jàpp njamale ci àll ba wala ñeeñ da xam ne gëléem yàllaa ko tàggat su ko tàggat doon doo ko mën a jàpp soo bëggoon a jàpp kooba ca àll ba da nga xam ne jàpp kéréel wala badoon wala mbill da xam ne bëy yee yàlla yàllaa leen tàggat de xataa soo bëggoon a jàpp cokkeer wala naat da xam ne ganaar gi su ko yàlla tàggat doon doo ko a tus de moo duñ sant xéewal ak yàlla wa taxasoo ñu jàpp min dooni laay dul yàlla nag aliatun ay yàlla yooyu yëpp ñu wàcc fi yàlla nag dem sàkk xere bi ñuy jaamu laa lahum boo ñoom ñun laa lahum ndax ñoom ñun toroon a def na tere leen dugal laa yastatiyoona xàttanti ñu nasrahum ndimbal seen woowu ñoom jundun ay lël lañ lahum yu ñee leen mu doon yu duñ ci ñoom fa safara de yooyu yëpp ñu wàcc fi yàlla mi def loolu dem sàkk ay xerem di leen jaamu su amoon xol xolam dana tàng loolu moom yàlla te yooyu jaamu duñ dara mënuñ leen a defal dara mënuñoo defal seen bopp dara waaye ñoom ñëpp danañu ànd seen yàlla ñoom dugg safara te duñ ko mën a faj de balaa yoo suñ ko bu jàqaloo la yow suñ ko bu jàqaloo la yow yonent xawlu mu wax seen maa la duwul ak yonent bul mer liñ naa la yàlla yónniwu la loolu bu mu la naqari dinaa nun naa la mu danañu xam maa yu danañu nëbb ko maa yu naa la danañu feeñal ko de man yàlla xam naa seen mbóot xam naa seen ak feeñ li ñuy wax yépp ndëng rek a tax ñi waaye jàppuñ ko ci seen xol de xam nañ ne yonent bi yàlla nga de awalam yaral insaana kooku lu ko wasal wàcc na ci Aas ibnu Waayil wala Ubay Ubay ibnu Kaab Ubay ibnu Xalaf moo demoon ba ca dugoo ba mu gas bàmmeel ba jot yax yu fu nax ñëw poñete ko ci kanam yonent ne ko ana ku mën a dekkal lii gannaaw bu mu sa borom ne mën naa dekkal yax yu fu nax nii sa borom nar na de buur ne awalam yaral ndax xamut linsaanu Ubay wala linsaanu xaasi ana naka nun xalax naaw bind nañ ko mu nut ko ci mu dugg ci ndoxam man yu moom moom mi xéem dekkal yax bu funux dafa fàtte ne ci ndoxam man yi da ko yàlla binde ba mu jël ko muy nit ku dëgër fay saa am la fekk woo moom xas yi mun tat juquloo ale la gannaaw ko yàlla bind ko ba muy doomu aadama ju mën a wax bind ak doomu aadama li ci gën a xéemu mooy yàlla def ko muy wax wax ju fasaaxa jaxag ci mën a xuloo taxawal saw lay wu git menn bindee faagut ci loolu moo ci jël ndoxam maniyu bind ko def ko mu dig nit waxuma mu matal ciram yi ak bind gu yéemu bi mu bind doomu aadama waaye mu def ko mu am xel am làmmiñ wuy wax ba léegi mu am doole taxaw di xuloog yàlla far nga def loolu mën da dekkal ku dee wax lu xéemu la te lu tegtale kattanu yàlla la lim def ci nit ki yëpp wax ci gën a xéemu moo tax yaaram ne nit yaari genn wàlla la làmmiñam ak xolom li ci des yëpp deret ak yàpp rek la moo wax ci nga xam ne moo ràññale nit ki ak ndunda yi ci def ñooñ man ci dañuy wax linsaan mooy xayawaanu naatiqu ndundat luy wax doomu aadama rek a jagoo di wax ci mboolem yàlla bind moo ki jàpp ndoxam ma def ko muy waxambaane muy cataŋ cataŋi loolu doyut muy wax kooku mën da dekkal ku dee wa daraba tam def la naa ñaan nu masala nuñ léeb wana seetam fàtte xalqoo bindam ga muy dem di léebal yàlla di indi yax yu funox naa ana ku mën a dekkal yax yu funox yi te fàtte ne moom ndoxam ma niw lañ la woon dañ bind ko léegi muy nit ki xaala wax na mu ne ma ana ku gën mu dundal xale saa may woyee te ñoom ram yi mun rëy funox lañu mun a ana kuy dundal yàq yi funox kul waxal yu yaa dana dundal ko ala si an sa sosoon na mu ko wala maratin janjeel bi ak yoon de bu waxee ne kuy dundal yàq yu funox tont laa ngoog ka ko sosoon te nekkutoon di dara de sos lëf te nekkut di dara moo gën a jafe fuuf delloo si loo xam ne amoon na de woo moom buur alimun aji xam la mu bi kulli xalqin ci gépp bind yàlla lépp lu aju ci bind loola xam na ko de muy fasale muy luñ lëm moo tax ba mu bind doomu aadama mu jóge ci ndox maniyu mu boole ci moom yi mu boole ci moom yépp ci ay cosaan yu bokkut ba noppi may ko mu mën di wax ka def loolu mën naa dekkal ku dee de doomu aadama buy dund am na yananti njar deret ji bokkut ak balxam bi bokkut ak safaaw bokkut ak sawdaaw doomu aadama mën naa mer be mel ni safara wuy leen saraal saraa bu gën a guddi ci doomu aadama ak doomu aadama ni muy foor yëpp doomu aadama fi gën a ñàkk solo nag manam-manam yépp ñu yaayu ci man-manam yàlla rek lu yàlla defut dara la ci moom te doomu aadama njool beenam lan la loxom ma niw rek mujjam lan la médd rek ñu ñëpp séexlu ci diggante bi itam fu mu toog ay tojalan ci biitam doomu aadama waxuma dara waaye su toogee ay fan sanguwur sax daal di féexlu boppam loolu moo la won ne doomu aadama war nga de xooram gi yëpp day borom bi rek ko xooral waaye gémmiñ gi sax soo amee bésab lëm nga lax sa cuuloo sa gémmiñ sax di la xasew sa bët noonu sa yaram yëpp boo sa nguut di xasew ak a pirim foo tollu ay tojalan gi sa biit te ci medd nga jëm te ci mën yu nga jóge woon loo rëyee amula benn fooraay lu may gëm yàlla topp yàlla rek allëfi yàlla mi nga xam ne jaara bind na mu lakkum ñeleen mi ne sajari ci garab laxdari ga de aji tooy naaran safara doomu aadama safaraa ngi ci moom bu meree nga koy xam wante su fekkee xam-xamam jotiwut foofu na seet garab gu tooy garab gu tooy boo ci xooxoo rek safara dal di ca génn garab gaa ngi tooy ndox a ngi ci yaramu garab gi nga xob yaa ngi tooy te terewut safaraa ngi ci ndox mu moomu ci garab gi yàlla nga ko booleeg safara ci garab gi ci wenn waxtu te mën loolu mën da dekkal ku dee te nam defe safara ca garab gu tooy ga te daqoon te wut ak ndox ma ca nekk noonu la defee safara itam ci jëmmi doomu adama ji safara ci garab moom man nga koo xam boo foroforo léegi bantab kuréel soo ko tegoon léegi fa moroom ma di ko ca foroforo safara fay dal juddu léegi ñun def nañ ko ba tey fay taamti la fekk tuuqi doona da ngeen taal mu nu tukkee ci moom su ko defee rek nga dal di taal ci safara woowu nga xam ne mi ngi génne ci garab gu tooy ni mu defee safara ci garab googu noonu la defee safara tam di sa jëmmi bopp ji moo ki mën a boole ndox ak safara ci jenn jëmm te duñ yëgoo kooku dekkal ku dee awalay sa les yi addeet kaaka xalaqa bind na mu samawaati asamaani juróom-yaar wala daal suuf juróom-yaar bi xaadiri muy ajaar te naa laan yaxluqa bu mu bindat mislahum kem seen moo ki bind asamaan si tiim ñu bind suuf si ñu dëkkee ci bind yaari wu rëy yooyu mën nga bind lu toll doomu aadama rek ci tuutaay bale anaam tontuñ ko mu tontu boppam oo moom alxalaaqu mooy aji bind alaali mooy aji xam lépp lépp kooku xam-xamam amut dayo kattanam amut dayo lu ko soob rek loolaay xam innama amruhu naka mbidam idaa arada ndem na mën a mu seen amal ak lëf an yaqoola mooy mu waxat la ko ku nekkal fa yakunu te moom dana mu nekk de buur boobu lépp lu mu bëgg rek kun lay wax de mooy borom kun fa yakoon fa subhaanal la bii tudd na ma sell ak buur ba nga xam ne bi yedd yi aji nekk la ci kattanam malakootu kulli shay'in nguur ak lépp lépp pour jaw delloo leen i lay yàlla mi nga xam ne nguur ak lépp lépp ci loxoom la nekk te ci moom ngeen di dellu jëm de naa dégg ngeen li tax yonent ne lëf lu nekk am na xol xolab alquran moo di yaasin <clears throat> yaasin ngoog mooy xolab alquran diina tas tasab diine <clears throat> gëm yàlla ak wéetam gëm yonent bi ne yàllaa ko yónni gëm alaaxira xam ne da nga dekki ñuy saablam fay la sa jëf dem xiw la ndem hay yett yooyu mooy diine yëpp yaasin bidal na ko bidal koo xam ne moo raw yëpp saar moo tax ñu ne def lu nekk am na xol xolof alquran mooy yaasin moo tax yonent bëgg na ne jàng leen yaasin fa seeni niiw nit boo xamee dara desul lu may ma ngay dee nga xam ne néew na doole mënatut a def dara amul lenn cëram loo xam ne mën naa jeexital ci dara làmmiñ wi sax dafay lott ci wax bu boobaa soxla na nag gëm yàlla ga gën a dëgër te suñ jàngee fi moom yaasin di dee mënu ko jàng sax suñ jàngee fi moom yaasin mu dégg pas-pas yi nga xam ne tey yaasin làmboo ko ci wéet ak yàlla ci dëggug yonent bi ci dekki ak hisaab loolu dana ko yokk gëm yàlla moo tax ñu bëgg jàng yaasin fi kuy dee koo xam nag ne yaasin mooy jàng na yaasin ji mujj ak dee am dañ koy nandal ridwaan dafay dal di ñëw jox ko naan ku jóge ci aljana mu naan xam ne bu muy dee ma nga màndi suy dugg ci bàmmeelam ma nga màndi bu nekkee ci bàmmeelam ma nga màndi buy dekki ëllëg it ma nga màndi buñ koy fangitam ma nga màndi de yaasin a ngoog lépp lu luñ ko jànge rek muy loola yaasin ci jaam bi daal wàccuwaay gun ci borom bi